asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu mën a nekk. dellu siwaat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amal seen sit bi ñuy wax Tanime TV Seydina moo nekk ci xarale gi. ngeen nuyu Baye moo du Touba 28 Minam Dekko mbokk yi taxaw seetlu bi dafa jëm ci kàddu yi nga xam ne. Moustapha Njëkk Sare moo ko yëkkati jëmale ko ci Ousmane Sonko dinu nettali taarixu Pastef nan la juddoo ci réew mi ak seen vision yi nga xam ne amoon nan ko ne faaw ñu sàkk njiit loo xamante ni qualité yi ñuy bëgg a wax day nekk ci moom benn bu ci fel rekk duñ ko jox sunu parti loolu nag yàlla dogal na biñ ko tànnee wax nañ ne usmaan Sonko mii rek lan gisoon ne qualité yi ñu doon sàkku ci ku jiite sunu parti Ousmane Sonko dajale na ko waaye du Ousmane Sonko moom sax moo formé wala moo sos li ñuy wax Pastef waaye bi ñu ko sosee ba noppi nag lan wax ne qualité yi nga xam ne wala jikko yi nga xam ne wala yi nga xam ne mënuñu ñàkk ci njiit yooyu daal yii lan ci tànn. loola nag biñ ko tànnee mat na ñeenti qualité yoo xamante ni biñ ko tànnee gis nañ ko ci Ousmane Sonko ma dolli ca ne leen am na sax yeneen yu ngeen bëggoon a tànnaat te boolewu leen ko ci tamit ngi ci Ousmane Sonko euh, ñoom dana wax ne bi nu tànnee Pastef 2014 la 2014 2024 ñu jël réew mi bi ñuy tànn dañoo wax ne ki nu bëgg mu jiite parti bi war naa jub loolu mel na ne élégance bi sëñ Basiru bi mu dikkee nekk naa dafa wax ne jub jubal jubbanti ma ne ko ak jubali loolu baax na mu wax ne ñu waxaat na bi ci topp muy deuxième point bi mooy mënta ñàkk xam-xam boobu tamit mu doon bu baax beneen bi ci des muy koo xam ne day am fit bi ko ñeenteel ñu ne ku bëgg réew mi koo xam ne day bëgg réew mi réew mi da koy gënal boppam mbokk yi critères yi ñun ñëpp nan ko wëndeel ci sunu bopp ba xam mi ngi ci ñun wala de bu ci nekkul nan ko wuti ndax ay jikko yu lu baax te li ci gën a yéeme mooy bi ñuy tànn lii booba Ousmane song toogul nekku fa bu fekkoon ne jikko yi amuko kenn du ko tànn kon am na mbir yoo xamante ni buñ koy tànn tànn nu ko ci juddu tànn ko ci askan tànn ko ci ki waaye dañ koy tànn ci ay qualité qualité yooyu nag nit du ko judduwaale nit du ko judduwaale jikko la joo xamante ni lool ñuy wax ne ko kenn du ko doon kenn du ko doon yaay góor góorlu ba mel ni nga bëgg a mel ak fi nga bëgg a jëm lenn la la yàllay defal bu la yàlla bindee mën na laa boole ci askan wu baax loolu fàggu woo ko boole la ci fi ñuy wax ña eex bu rëy mën na caa dolli mu defal la taar boo xamante ni bu jégg dayo la waaye loolu lépp taar bu àndut ak jikko ju baax taar bu àndut ak ju rafet taar amu fa ak njub bu àndut ak jikko ju baax ak njub amu fa aw fit bu àndut ak jikko ju baax joo xamante ni fit yu baax na waaye li li fit wi fi mu koy jëmee mooy ci lu rafet ci lu ko jar la ko fit di jëmee bëgg am réew réewam na fekk mu bëgg réew moo xamante ni dafa tege ci fondation boo xamante ni fondation diine la te réew mi quatre quinze pour cent yépp ay jullit la kon mbokk yi ñu tàmbali ci jikko yi jub la njëkk a wax jub yaakaar naa ni yàlla moo ko njëkk a wax nee na na ngeen moytu yoon yu ndaw yi nga xam ne ay yoon yu jàdd la da ngeen aw ci yoonu seraatal mustaqim yoon woowu mooy yoon wu jub wi te yoon woowu de su ngeen ca awee du ngeen réer te da ngeen du ngeen du ngeen gëlëm te di ngeen àgg kon usmaan ci yoon woowu la jóg muy yoonu njub njub mooy lan mooy boo wéetee ak boo wéttali ko na nga yëg ne yàlla moom mi ngi lay gis bu la kenn gisul tamit na nga yëg ne yàlla mi ngi lay gis ba tey buñ la jalaloon nangam ci xaalis nangam ci or digle nangam ci suuf dangay xam ne yàlla moom moo leen ëpple loolu buñ la digoon ñaar lan la mën a dig mooy xëpp ak xupp bu dee xëpp yàlla mooy joxe wërsëg wërsëg wu nit am rek ci wërsëgu yàlla la ko jële bu dee xëpp xupp xupp moom la cay tege mooy ñu rey la war na fitnaale fitna ju mën a wàcc rek dogalab yàlla da caa ànd moo tax boo boo noppaloo ci yooyu moom noppalu nga boo noppaloo yi tamit ne yow ci njub ne sa wërsëg xamoo fan la nekk waaye sa wërsëg moom xam na fi mu nekk ndax ki ko bind moom xam na fi mu ko nekk te dina ko fi yebal waxtu bu bëggee ñëw te kenn mënu koo lekk nag kenn mënta lekk sa wërsëg looloo tax nag ak njub baax bi ci toppaat mu ne xam-xam dafa doon loo xamante ni nit ki bu ko amul rek daanaka làmp bu amul batterie la ab làmp fa nekk waaye dara nekku fa mooy loolu xale nit ñi di wax rek ne di ko misaal ne wala boroom xam-xam mi di wax ne mbaam mu sëf ay téere benn njariñ la ko dut amal benn njariñ la ko du amal waaye xam-xam ak leer la fal ilmu bi kasarati riwaaya bal innahu nuurun maaxi ak leer la kan la ko yàlla di joxal mooy ku jub dafa am koo xam ne dafa demoon ci sëriñam ne ko man de day def lu ma jàng rek dama koy fàtte lu ma jàng dama koy mu ne ko xanaa da moy yàlla mu ne ko waaw mu ne ko yàlla du boole ak moy ak leer bu boole lëndëm ak leer ginnaaw da ngay moy yàlla ragaloo yàlla ba di ko moy yàlla yàlla nag ak leeram gi mu yor du ko dugal ci lëndëm looloo tax xam-xam baax xam-xam mooy lan mooy bant bi ngay sukkootu mooy bant bi nga xam ne dalay niital xam-xam mooy lan mooy yoon wi nga jëm di nga xam wu dëng la ak wu dëngut moo tax xam-xam kenn ku ko ñàkk xam-xam li muy def ci dund mooy day yëkkati sa niveau day sa niveau da ngay xalaat-xalaat yoo xamante ni allazina yaskuruuna allaha qiyaaman wa uqoodan wa bi junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard rabbana maa xalaqta asa baatilan subhaana faqna asa loolu mooy xam-xam xam-xam lu koy lal mooy yéene ju rafet yéene mooy boo yéenee sàkku xam-xam yàlla moo lay wërsëgal loo xamante ni du ko wërsëgal kenn lu xam-xam-xam bari bu yéen a rafete yàlla imaam Malik ba mu bind téeréem ba am ko ko ne yow di lii ngay bind dafa mel ni da ngay reppte rek am na ñu ko bindoon mu ne ko waaye nag ku nekk la nga yéene la la yàlla yi fay imaam Malik yaakaar naa ne mu wattaam bi bokk na ci téer yi gën a siiw ci yi ñuy jàngale lu ko waral mu lax def yu lu ko waral mooy barkeb ak yéene jën ci yéene woon moo tax seen xam-xam des fi ba léegi aw fit mooy lan fit mu teg ca beneen mu ñetteel ba mu ne fit wi aw fit faw nga am aw fit fit mooy lan fit boo ko amul loo tàmbali ñu ne buñ la nee wuub nga wàcc ko doo doo àgg boo ne te ci ci daw rek ngay dëkk da wëqat nga yomb bis bu nekk ñu dàq Ousmane Sonko ndax bu amut woon fit li ko Macky Sall teg ci àdduna teg ko njabootam ñaata nit ñoo dee ci Pastef yuñ juddoo ñaata nit ñoo ci dugg kaso ñaata nit ñoo ci laago ñaata nit ñoo ci ñàkk seen seen seen seen seen seen seen seen seen métier te Pastef ñett yi dañ ko cee boolewut waaye ñett la yoo xamante nii daanaka moom Pastef ñoo juddoon Pastef boo cee dugg benn danga ñàkk sa liggéey wala nga faatu wala nga dem kaso yooyu mooy critères yi ci Macky Sall tegoon ginnaaw ñoom ñoom bi ñu tànnee ñett ñeenti yi Macky ñett yi la leen tànnal ku bokk Pastef mën ngaa ñàkk sa liggéey mën ngaa dem kaso man ngaa dee yooyu leen te loolu Macky am na lu ci def donte yéeneem yàlla àggalewu mbokk yi aw fit dafa am solo yenn saay nit di la xupp sax te fekk ne dalay napp rek yaa ko ëpp fit boo amut fit doo jóg bu amut woonu fit fii mu agsi dina fa agsi beneen bi ko ñeenteel réew mi mu ne dangay bëgg sa réew boroom xam-xam yi dañuy misaale ne nit ki bëgg réewam da ko war a yemale comme weenu ndeyam xale bi nàmpu bi nàmp am ñetti weer di nàmp weenu ndeyam ni mu koy bëggee noonu ngay bëgg sa réew Ousmane Sonko yaakaar naa ne su fekkoon ni bëggul woon réew mi kon dana dem fekk Macky Sall wala ñu jox ko xaalis wala mu génn ci politique sax lim daj ci politique kenn ku mas a politique ci àdduna ba daj ko ci amul waxuma Sénégal ku mas a daj lim daj ci politique amul kon Ousmane songo wax dëgg si yàlla critères yi ñu ci tànnoon amu ci benn buum ci échec amu ci benn boo xam ne dana wax ne. Ousmane songo yéen ko tànne woon de échec na ci te ñii tànnit ñu mën a tànn la njiit du caaxaan njiit du caaxaan ndax njiit bu échecgee rek lépp échec bëgg réew mi tax na Ousmane Sonko euh, tax bëgg réew gi mu bëgg réew mi su fekkoon boppam la bëgg rek day wax ne kon bi Macky Sall ne ko nan firiwaat yëf yi ngir nga jiite wala nga doon candidat day wax ne kon nan ko firi waaye bëgg réew wi moo tax mu jox Bassirou Diomaye na ko na ko doxal man du caagee nag naa nekk ci bopp bi wala naa nekk ci kanam waaye li may yéene rek mooy na procès bi dem waa Pastef leen ngeen war a njëkkale Ousmane Sonko ñu àgg dix ans mu am dix ans Ousmane Sonko jox leen réew mi yéen waa Pastef lan ngeen war a njukkale usmaan songo moom mi leen tànnal ay maire def leen ay maire ak ñu bokkut Pastef sax loolu ci bokk bëgg réew mi lay firi am ñu def ay député ñoo xam ne bokkut ak ñoom sax position politique mu def leen ay député te yooyu yëpp benn nekku ci nekkul woon député bi maire yi dem euh, maire la nekk maire am delloo na ko tey yéen waa Pastef lan ngeen war a fayee Ousmane Sonko mooy bu leen ko war mukk bu leen ko weccoo kenn bu leen mooy ndigalam mukk mukk ak lu mu ndigal li mett metti bu leen mooy ndigalam loolu nag dañ koy tàmbalee ci président de la république muy Bassirou Diomaye yal na la yàlla jubalee Ousmane yal na la yàlla dàqal seytaane sa diggante Ousmane li nga doon tey ginnaaw yàlla moo tax nga doon ko usmaan Sonko bëgg réewam moo tax bi mu ne Sénégalais yi joxañ naa Bassirou Diomaye te jamono yi mu koy wax boobu kenn ñemewut a joxoñ kenn ci réew mi kenn ku fi mën am garaata joxoñ nit ñëpp lii ñu woteel la loolu yombut woon mais maintenant moom dong la ko yàlla may ne lu mu joxoñ nit ñi ñi ëpp fu soq ga te dafa joxoñ Basiiru Jomaay ne man may Jomaay Jomaayee song nit ñëpp cinquante quatre pour cent ñu woteel ko waa moom li leen gën a motiver mooy baatu Pastef ñoom Pastef duñ ko fooyee Pastef day seen deret seen lépp moo tax koo ci gis muy ñukk ñukk ak di daw ak a dikk boo yéree la nekk ci biir muy positif positif mooy lan mooy lii daal lu baax la positif laa ci am ba am ko pas-pas moo jiitu waaye positif mooy tax nga am ca man ngaa am pas-pas ni lii dëgg la gëm naa ko ci sama xol maa ngi koy reconnaître waaye pas-pas positif nag mooy tax nga jariñu ci moo tax waa Tuubaa bi ñuy wate ñoom dañ koo jox positif dix la am dugg jël réew mi bokk ci ñoo xamante ni bi mu koy jël wax na nee na kenn xamul woon aw turam boo ko masaan tudd dañu wax ndax mbëru làmb la walla déet kenn xamu ko ci benn côté boo xam ne xam ko ak juba mi tamit bi mu koy misaal quinze cent ku ko def ci ci service mos nu laa wax na benn dërëm boo lekk ñu jàll la nangami xaalis xaalis boo xam ko lijjanti treize nekk ci sa ordonnance amuloo ko jënde bëgg réew mi tax nga dem duggi kaso Ousmane Sonko jikko ji mu yor na ñun ñëpp nan ko jéem a am jikko jikko yu baax la de rawatina cib jullit nag jikko yu baax a baax la waaye rawatina ci jullit yal nan ko yàlla wërsëgale dajaleel na ko moom la mu defoon ci Omar ibnu Abdou Aziz daal Omar ibnu Abdou Aziz ban koy fal moom it nii leen defoon danoo toog tànn jikko yi yi nga xam ne njiit amee na ko bi nu dajalee ba noppi danoo gis ne jikko yi Omar ibnu Abdas am na ko waaye jikko yooyu danoo dajale na Ousmane Sonko am na ko mbokk yi jikko yi yal nañ ko yàlla wërsëgale yal nañ ko yàlla jàppande la ba dolli ci yeneen i jikko yoo xamante ni euh, njiit da koy am kon mbokk yi ñu ngi taxaw fii di ñaan yàlla may nu wérug yaram gu wérug diine yaatal suñu wërsëg boole lu ci mujj rafet salaamu aleykum wa rahmatullahi